wel dinaa la wax ne am naa mbégte boo xam ne xaw ma fuñ ko nattee ak fi muy yem parce que déjà ñun amuñu lu dul l'islam te gis nañu sëñ Bamba lu mu représenté ci l'islam te Bamba dey bii tey maanaam mën naa ne man mii rek fekkee naa ñaar fukki at ñu koy fete macha allah mu doon lu ñuy rafetlu trop kontaan lool ci teewaayu sëñ bi ak vraiment kaddu yi ñu fi yëkkati yëpp kontaan nañ ci lool. mais nag euh, comme ni nga ko xamee rek ñun moom li ngeen ñu xamee foofu ngeen ñu xamee yàlla dafa def ñu nekk ci biir Bamba Day bi ñu dégg ne ji fële donc euh, loolu daal yokk indi na tiis daal ci xoli yi voilà. gannaaw nga ne vingt mm-hmm. wel toujours xam nga maanaam événement bi moom. man naa ne mooy événement bu gën a ponctuel bu sénégal yi gën a respecté ci réew mi 9h la ñuy woote chaque année tàmbalee ko 116 dox ba bi bii am na nag yenn année yoo xam ne dañuy dox ba 137 foofu la ñuy jàppee événement bi comme daaw mais macha allah c'est toujours la même chose des milliers de personnes se rencontrent ñëpp ci jàmm ak parti politique ak affiliation politique bu nu mën a bokk duñ ko xam bu kerogee. keroogee ñun ñëpp dañuy doon benn ànd vraiment sagal Sénégal mais comme ni ma la ko waxee encore te du ma ci ko taayee wax xol bi neexul fi mu ne. voilà donc c'est ça. d'accord gis nañ discours yi am solo bi nga xam ne lettre bi nga xam ne moom la maire bi joxe ci Adam. Mhm. ak euh, ni ñu rafetloo communauté sénégalaise bi ni ñu ni ñu respecté seen i culture. Mhm. façon bi ñu koy demalee ban analyse ngay def ci loolu gannaaw am nga expérience bi ci. Euh, mën naa ne xamu xam en connaissance des causes voilà donc dëkk bi moom mën nañu ne rek euh, déjà li ñu li ñu ràññee ci ñoom boo respecté sa culture dañ la koy respecté le te mën naa la ne encore une fois Bamba Day boobu loolu lañ ci ràññee dañu gis ne sénégalais yi dañu am. fulla ak fayda bëgg sëñ Bamba lool donc ñu gunge ñu ci donc loolu moo waral lii ngay gis tey ku mel ni mais mais Adam ak yeneen vraiment ñuy ñëw di ñu taxaw. voilà léegi message euh, wel message boobu la ñu am. message boobu la ñu am comme niñ koy waxee xëy na rek suñu waa ji dafa bëggul jàmm. ndax président Ousmane Sonko moom jàpp ko mooy euh, jàpp euh, lo jàpp lu tàng ci sa loxo te incha allahu rabbi les patriotes vont réagir au plus rapidement possible ah, jërëjëf. Euh, gars waxoon ne suñ ko jàppee dañuy dem dem génne ko. loo loo loo jàppee toogee benn rek. loolu loolu léegi mu leer incha allahu rabbi président Ousmane Sonko moom du yàgg ci ay loxo moom. voilà loolu moom comme jàpp nañ ko léegi la jeunesse va réagi la jeunesse réagira dinañu réagir léegi léegi léegi bu ci yàlla ànde incha allah rabbi jërëjëf merci.